mooy euh, gërëmaat wax dëgg yàlla waa Belgique ndax ENABEL mooy organisme bi xam ne mooy récupération Belgique gërëmaat waa Belgique seen ndimbal bi xam ne ñu ngi ko moom lu lu métti la non seulement day feebar nit ñi jàpp nit ñi mais en plus day téye activité yi donc ñu bëri tey béyoon nañ ba pare am jafe-jafe pour mën a jaay amuñ ko ñu jaay événement yi mag yi xam ne moo leen daan jaayee événement yooyu amul amul màggal amul gàmm amul ziyaara amul donc euh, ñu su bëri li ñu si jëfaroon dafa desoon seeni loxo donc tey bu Enabel ñëwee jënd production boobu loolu jàppale na leen dimbali na leen beneen jafe-jafe bi tamit mooy ñu si bëri tey socialement métti na trop si seen côté xëy na bon lii bu ñu leen ko joxee dina leen permettre ñu yokk yokk ko si nga xam ne ñu ngi ko doon dimbali ko ñuy gërëm bu baax El Abel vraiment di gërëm bu baax peuple Belgique di gërëm bu baax vraiment ñi xam ne jàpp nañ si yëpp dinañ wax ne nañ ko jéem a yeggale fi mu war a yegg ba ñu ko ñu gën a soxla muy seen bopp incha allah. ah day resté continuer pour yeneen commune yëpp bu commencé commune Pout sax il faut que ñu yeggali ko loolu symboliquement la woon démarrage bi. dinañ yeggali commune de Pout mais dinañ yàgg yegg également si yeneen euh, département yëpp yeneen commune yëpp pour que fu nekk mën fi yóbbu ndimbal bi naa ne si biir semaine prochaine bi moom dinañ leen convoqué waat sax pour le bilan d'état dinañ def réunion comité régional si biir semaine bi dinañ def convocation pour ñu def bilan d'état bi lii mais nag li ñu leen si mën a wax fi mu ne nii mooy que denrée yi ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw normalement ceeb bi presque pare na presque pare na suukar seeg diwlin bëgg itam ñu ngi ñëw yeneen yi ànd yëpp ñu ngi ñëw donc au fur et à mesure que paquet yi di pare effectivement dinañ leen mën a distribuer euh, li des tamit mooy transport bi également jox nañu moyens yi xam ne ñooñu war a mën a permettre pour ñu transporter ko yóbbu ko si commune yi def na ne ñu ngi stock yëpp si niveau département commune bi nekk nañ la yóbbul sa sa stock loolu tamit moyens ko loolu li desoon tamit mooy ciblage bi ciblage bi tamit presque pare nañ mën naa si biir semaine bi comité départemental yëpp nee naa leen nañ finaliser eh, ñun tamit si début début semaine bi dinañ def Pendant le MAREC, je suis responsable du projet Parerba. est un projet mis en œuvre par Enabel. Enabel, c'est l'agence belge du développement euh, qui met en œuvre les projets de coopération mis en œuvre par la Belgique. Euh, le programme Parerba est financé par le Fonds d'urgence de l'Union européenne et travaillent dans le bassin arachidier à créer des emplois ruraux pour les jeunes euh, en euh, recherche d'emploi. Dans le cadre de la, crise Covid que, vit le Sénégal, Enabel a choisi d'intervenir en urgence par une action euh, choc de l'achat de tonnes d'oignons aux producteurs appuyés par le Palais qui a permis à ces producteurs qui avaient du mal à écouler en raison notamment de la fermeture des Luma que de pouvoir écouler leur production et euh, accroître leurs revenus. Ceci 120 tonnes d'oignons et Nabel a décidé de les euh, donner dans le cadre du, dispositif de l'État sénégalais mis en place par, euh, le gouvernement sénégalais, le programme de résilience, qui permet euh, à des ménages vulnérables que de recevoir de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Thiès. Hier, nous étions dans la région euh, de Fatigue. Et aujourd'hui, nous remettons, dans plaisir de remettre au gouverneur, d'oignons, pour une valeur de millions de francs CFA, qui devraient pouvoir euh, bénéficier à près de ménages de la région de Thiès. On a acheté, nous, tonnes. On aurait pu acheter ou tonnes. je pense que c'est pour 1000 producteurs. Voilà, donc c'est euh, peut-être des chiffres d'affaires. On a des producteurs qui nous ont, euh, qui nous ont vendu 6 tonnes, hein, donc qui ont pu gagner francs CFA grâce à, grâce à là euh, mais a priori, c'est au moins entre 1000, entre 1000 et 2000 producteurs. Voilà. Les producteurs se sont associés, en fait, se sont groupés. Hein, on a, il y a aussi cette solidarité entre les producteurs qui a permis que de grouper les productions et de nous proposer 620 tonnes euh, de, de Voilà. Je voudrais commencer par remercier donc euh, la coopération belge de nous venir en assistance en cette période euh, difficile, de venir en assistance à nos populations qui en ont grandement besoin. Euh, Covid donc, ne, ne, pardonne pas et donc et, et impacte tout le monde, directement parce qu'on est malade, mais indirectement également parce que souvent on n'a pas la possibilité d'aller mener ses activités. Et euh, la réponse qu'Annabelle nous amène, donc, euh, que la Belgique nous amène, parce qu'Annabelle, c'est l'organisme de coopération de l'État de Belgique, le peuple belge nous amène, ce euh, qui sont impactés économiquement, sachant que du point de vue économique, le simple fait d'avoir acheté donc cette production-là a beaucoup soulagé nos producteurs. C'est vrai que depuis quelques jours, on avait des, des nous avons notre stock entre les mains, on n'arrive pas à vendre cela. C'est dans la zone des Niayes, c'est dans la zone de Natos, partout dans les zones maraîchères. Pourquoi Parce que les grands événements qui permettaient à ces populations de vendre leurs productions, à ces publics de vendre leurs productions, ces grands événements n'ont pas eu lieu. Donc, en euh, vérité, euh, on a risqué d'avoir un de mévente important. Donc, euh, heureusement, avec Annabelle, donc, cette mévente-là va diminuer. Mais on espère que d'autres vont intervenir également. On aura d'autres interventions du genre. Des personnes ou d'organismes qui vont acheter donc, la production et permettre aux populations, donc aux en particulier, économiquement de circuler.